dañoo nekk groupe yoo xam ne xeer yi fu ne lay jógee ndax force de l'ordre yi tamit dañuy sandi ay xeer ak ay lacrymogène ci biir jeunes yi donc c'est pas c'est pas prudent pour mu mën a dem dugg ci biir yi mën a jaamaarloo mën a mën leen won image yi donc mu ngi noonu gis ngeen ko gis ngeen ko amatuñu doole force de amatuñu doole ndax xeer yaa ngi jóge fune ne xeer yaa ngi jóge fune ne ñëw gis ngeen jeunes yi c'est parce que suma ma zoomé qualité image yi dina baax mais jeunes yaa ngi nii jeunes yaa ngi ni jël nañu asoo jël nañu asoo auto sapeur yi xaw ma lu xew foofu jël nañu asoo auto sapeur waaye gis naa ni ñu ngi naan nañu bàyyi sapeur yi ñu ñu dem ndax xëy na ñoom duñ ci lenn ñoom dañoo ñëw juste secourir les blessés dinañ wax ni ci côté force de l'ordre di am nañu ay quelques blessés jigéen yaa ngi ni dàqante ñoom gis ngeen gis ngeen loolu gis ngeen gis ngeen loolu gis ngeen loolu gis ngeen gis ngeen ngeen gis ngeen loolu gis ngeen loolu gis ngeen loolu mbokk yi gis ngeen loolu tey li xew bi ñoo na mësta am mësta am mbir bi ñoo na jeunes yi dàq nañ leen xoolal xoolal lu ñu def station bi lii rafetul mbokk yi ñu ngi noonu di sandi ay xeer ci ay station lii rafetul mbokk yi lii rafetul lii rafetul mbokk yi lii rafetul militaires yi nga xam ne ñoo ñëw pour calmer leen gi ñoom la ñuy sànni xeer mbokk yi lii rafetul militaire baa ngi noonu di armé wu lii rafetul mbokk yi jàmm gën ay mbokk yi ñu ngi noon jeunes yaa ngi noonu jeunes yaa ngi noonu. gis ngeen gis ngeen jeunes yaa ngi noonu di yàq di yàqati station bi gis ngeen ko jeunes yaa ngi noonu di yàqati station bi ndax jàpp nañ ni station bi tubaabee ko moom metti na torop metti na torop metti na torop li xew bi ñoo metti na torop li xew bi ñoo na metti na torop mbokk yi di wax ni piyé nañu station Total bi lépp lañ piyé yàq ko mbokk yi militaire yaa ngi calmer jeunes waaye jeunes yi nanguwuñu di leen wax ni partage leen li nekk di xew bi ñoo na mësta am mësul am militaire dañoo ñëw juste pour calmer ginnaaw ba takk der yi euh, gendarme yi demee dañoo ñëw juste pour calmer les jeunes ne nañ bàyyi li ñuy def euh, metti na torop nag waaye il faut ñu nangu déggal tamit ñi nga xam ne jox nañ leen cër ba ne leen nañu bàyyi donc gisoo ñu ngi noonu militaire yaa ngi noonu ne leen nañ nañ nañu bàyyi di leen ñaan pour ñu bàyyi. maa ngi dégg seen i dinaan mairie mairie mairie ah loolu gis ngeen am na benn partisan Sonko bu ñëw oto mbokk yi ñu na tàng na tey jir di wax ni bi ñoo na tàng na tey ma xool ndax dinaa mën a dem ci côté station bi li mbokk yi la xew station Total ñaaw na la xew station Total ñaaw na la xew Total ñaaw na la xew station Total ñaaw na la xew station Total ñaaw na mbokk yi gis ngeen loolu gis ngeen gis ngeen militaire yaa ngi mu ngi koy calmer mu ngi leen di calmer mu mu ngi leen di calmer militaire baa ngi leen di calmer mu ngi calmer jeunes yi mu ngi calmer jeunes yi mu ngi calmer jeunes yi. gis ngeen loolu mbokk yi amul fenn kenn mësu koo gis kenn mësu koo gis fii diwaanu Bignona rawatina station Total gis ngeen mbokk yi bain de foule bi ngeen di gis nii ñoom ñëpp taxaw temm pare jàkk jaamarloog mbokk yi nañu ànd gis ngeen ko. gis ngeen ko jeunes yi wu nañu ci lieu yëpp lépp la ñu accaparé wu jël nañ ko yëpp. gendarme yi dem nañu daw nañu yamu di lakkati tuuti kay mën nga jot tunde yi gis ngeen jeunes yi récupéré nañu stock bi yëpp récupéré nañu stock bi yëpp ñu ngi noonu gendarme yi daw nañu dem nañu fu mu ne nii militaire rek ñoo fi des ak jeunes yi militaire ñoo fi des ak jeunes jeunes yi bëgg a station bi mu ngi noonu gis ngeen ko département bi ñoo ne yëpp a génn ndax tey même les villages les plus reculés ñëw nañu bokk ci xeex bi gis ngeen ko nu ñu nekk di yàqee station bi tas nañ ko tas nañ ko tas nañ ko mbokk yi